Safa Diop sax la ñuy daal di dalal léegi léegi ci biir rubrique actualité. mbaa naan ngeen kafe bu ngeen ko defagul def leen ko mbaa yeewu ngeen ci jàmm ñun aussi yeewu nañ ci jàmm te fas yéene leen gunge rek euh, ba fileek dix heures et demi bu ngeen bëggee ngir rek mën leen a yee ci journée bu neex a neex euh, Moustapha mhm. euh, ñu gis ne que actualité yi ñu génn semaine bi ñu génn yëpp dafa riche trop en actualité mhm. rawatina ci wàllu politique ak lañ fa gis Massalikul Jinaan mhm. d'abord bu ñu ko dee commencé ci ci ci xayma yan jaar jaar ñoo fi gën a marqué fi mu ne ci wàllu politique alors soo dee xool da nga naan bi mujj am mooy moo xew dimanche bi ñu weesu mooy libération Khalifa Ababacar Sall dinaa ci ñëw léegi mhm. mais ñu déparé ajjuma euh, bee ñu weesu ndaxte fa la mbir yi doore mhm. di fàttali ne avant ajjuma boobu également xëy na euh, ñu bari ci ñun observé wuñ bu baax mais dafa am lu tubaab di tuddee euh, travail coulisse yoo xam ne am na lu lu bari avant ñuy àgg ci jumaay Masaalikul Jinaan jooju bul fàtte ne euh, Serigne Mountakha Bachirou Mbacké avant muy ñëw dakaar rakkam Serigne Isaaxa Mbacké ànd ak euh, Mbacké yu fay ak imam Mam Balla bu Parcelles dem nañ seeti Ablaye Wade wax ko ne ko euh, ñëw ñu pour inviter la ouverture Masaalikul Jinaan parce que sa yëf la invité ku la neex. alors bi loolu amee bi Serigne Mountakha ñëwee également bul fàtte ne euh, Abdoulaye wàdd dem na seetu bi ñu waxtaanee ba alxemes ci la Serigne Bassirou Abdou Khadr Mbacké wax ne ajjuma muy bis bi ñuy tijjee jumaay Massalikul Jinaan un événement heureux boo xam ne euh, sénégalais yu bari ñu ngi koy xaar mën na faa amee boobu nag ku njort rek di nga njort ne ndajem Abdoulaye wàdd ak euh, président Macky alors effectivement daje nañu bi ñu dajee eh, Serigne Mountakha Bachir Mbacké def li nga xam ne moom la kilifa war a def maanaam ñoo xam ne ci njaboot gi la ñu bokk bul fàtte ne Macky Sall mi ngi génn PDS 2008 ou 2009 boobu ba moo moom moog Ablaye Wade tooguñu jataay donc mat na 10 ans la seule fois bu ñu gisee en tout cas ci lu ñu yëg mooy bi ko Ablaye Wade di jébbal palais palais de la République pour mu remplacer ko nekk président boobu ba léegi déggantewuñu wuñ waxante am yu bëree bëri fi jaar parce que toog nañ ab diir ñu ne Ablaye Wade ki ñooñam ba ñuy jógee ca pale ba dañ fa sàcc ay moquette ak ay tableau d'art ak yu kenn xamul yooyu yu ñàkk fayda yooyu ñu dem tuuti ñu pour poursuivre euh, Karim Wade devant la CRI jàpp ko tëj ci kaso bi sur une de vingt cinq personnes je crois que moom rek moo ci dem procès ak li ci juddoo yëpp loolu metti woon Ablaye Wade metti goo xam ne yëkkati woon na fi ay kàddu yu ñagas lool teg ko ci kaw Macky Sall bëgguma ci dellu si parce que wolof ne nettali xuloo xuloo la alors ñuy dem di dem di dem ba ñu bari nag jëm nañ ci ci mhm. diggante bi bi ci mujj mooy bi élection euh, présidentielle 2019 mhm. Abdoulaye Wade ñëw ne day empêcher la tenue des élections maanaam dina fexe ba élection du fi am parce que élection xalaatul mu fi am te Karim Wade ak Khalifa Sall bokkuñu ci bi mu affaire bi tàngee ba xaw a kiit dëgër trop la Alpha Condé président wu Guinée euh, ab Ablaye Wade mu dem Conakry bi mu demee am na lu ñu waxtaane te lu ñu waxtaane umpul Macky parce que su Ablaye Wade demee Macky bu Ablaye Wade demee Conakry waxtaan ak euh, Condé c'est parce que dafa neex Macky Sall mhm. bu la ci kenn nax alors ñenn ñi nee nañ waxtaan wi bokkoon na ci un deal boo xam ne dina permettre Macky mu faluwaat ñooñu li tax ñu wax ko moo di ne Ablaye Wade bi mu jugee Conakry fekk la def joxewul consigne de vote. daf ne tekk consigne de vote mooy bu ko neexoon ne nañu wooteel Cheikh Tidiane Gomis te bu boobaa <laughs> dina feeñ ci carte gi. Mhm. mais daf ne duñu wooteel kenn. bu ñu demee ba mbir mi cate ba cate mu ne léegi sax ñi ku moom wooteeluwul mais ku bokk ci moom bu la neexee nga woote. tànn ñeent ne ñii mën na leen woteel euh, jiital ci Idrissa Seck teg ci Ousmane Sonko teg ci Issa sal mhm. kii ne moom xalaatul ñu di ko votel mooy Madické Niang on connaît un peu les raisons yi nga xam ne moom moo ko waral mais qu'à cela ne tienne élection yi am na Macky Sall gagné ko ci gagné bu yomb boobu ba léegi également mbir yi di dox donc su fekkee ne loolu lépp dafa créer benn climat de de tension ci réew mi parce que rafetul quand ci Sénégal un président ak ki ko remplacé munuñu mm. sax wax man toog naa fi wax ne teraanga yi ñuy defal ab du juuf defaloon ko Abdoulaye Wade gën parce que fi ñu jaar ñoom ñaar la déjà. te man li ma jàpp gëm ko mooy li ab Abdoulaye Wade jëriñ Sénégal Abdou Diouf jëriñu ko xalaat ba sama sama gis-gis la nag. Mhm. néew ma gis-gisu kenn la voilà sama gis-gis la. mais qu'à cela ne tienne donc loolu su amee su fekkee ne am na ku leen mën a boole ci événement bu mel noonu ku Massalikul Jinaan ba joxante loxo. Mhm. mais sénégalais bi ma doon bokkuma man ci na ci ñi naan. ab dil laa nangam ak nangam man damay déjà dama naan lu rafet la. Mhm. parce que pour l'image du Sénégal lu rafet la ab Ablaye Wade ak Macky Sall waxuma sax le fait que simplement kii moo nekkoon njiitu ki kii ko mais fi ñu jaar. Mhm. ak âge président ab lay Wade. je crois que jot na ku mel ne Macky Sall jox ko cër ndax âge bi mu yor déjà mhm. te ak li mu ko defal imaginel woon yàlla moo yor bakken yëpp ah mais imaginel woon ndog wala ndogal daloon ci kaw Ablaye Wade tey te lii amul lan mooy doon taxawaayu président Macky Sall. lan mooy doon taxawaayam et je crois que maître Alioune Badara Cissé mas na attirer attention wu président Macky Sall ci loolu que ni digganteem ak baayam boobu ab Abdoulaye Wade rafetal ko moo gën ci moom. parce que lu nekk mën naa am te ëllëg yàlla rek moo xam. Mhm. maintenant loolu dafa participer ci li tubaab di wax vent de décrispation. Mhm. murit yi di ko wax mbégte mi. Mhm. nga xam ne euh, moo soufflé un peu si Sénégal les gens euh, commencent di retrouver le sourire. au moins man di waxante c'est-à-dire que tey euh, muy le PDS muy la l'APR muy le pouvoir muy l'opposition joxante loxo boobu diggante Wade ak Abdou Macky day yombal seen mën a waxtaanaat. Mm. ñeen ñi dafay ne dafay joxe beneen souffle wala un nouvel élan. Mm. Euh, au dialogue politique. loolu moom seen réalité. Mm-hmm. maintenant laaj bi mooy lan moo ciy topp. Mm-hmm. parce que loolu la ñuy laaj alors. président Macky Sall dafa jóge ma saali Massalikul Jinaan def Ablaye Wade ci otoom ñu ànd ba kër ab Ablaye waat mu wàcce ko fa doog a dem ñibbi pale am na waa ju ma dégg mu ne bi Abdoulaye Wade duggee ci oto bi moom Macky Sall li mu ko njëkk wax mooy libéral Khalifa Sall <laughs> loolu nag dëgër fit mënu ko wees parce que je crois que <laughs> Abdoulaye Wade ak Abdoulaye Wade ak ci benn oto ak seen chauffeur ak seen xëy na benn garde du corps nga fexe ba xam lan lañ waxante ñoom ñaar ak la mu ko njëkk wax je crois que il faut être très fort pour ça ko alors je ko mais man xamu ko te <laughs> Abdoulaye Wade nettali loolu kooku wala Macky Sall nettali ko dina ma jaaxal trop lu ci mënti am euh, geste bi moom moom la ñëpp gis moom la ñëpp rafet muy ñuy toog mais alors lan moo ciy topp xam nga bi ko Abdoulaye Macky Sall yóbboo pare dafa wax ak la presse. Mhm. li Macky wax mooy am na ay contentieux yu amoon seen diggante. Mhm. mais c'est dépassé ñaar yooyu benn bi dëgg la benn bi du dëgg. Mhm. ay contentieux amoon na seen diggante c'est vrai mhm. mais Macky moo la gën a xam ne c'est pas dépassé c'est pas dépassé du tout lu tax mhm. parce que euh, lan mooy contentieux bi d'abord lan moo boole Wade ak Macky Sall nekkul euh, problème mu respect de libertés ak problème mu xaalis ak nangam ak nangam ak nangam boo xam ne mën nga dem ca banque ba bind chèque ne nañ ko fay nangam noonu la ça n'a rien à voir avec ça mhm. le contentieux véritable benn tur la am Wade la sant muy Karim loolu mooy le contentieux entre Ablaye Wade ak Macky et ce contentieux là n'est pas encore dépassé mm. alors nan lañ ko war a gérer tey jii lay Wade benn souci rek la am mooy Karim Wade am liberté totalu mën a ñibbi si Sénégal te benn poursuite du ko ci fekk parce que bul fàtte ne Karim Wade bi ñu ko attee ba gracier ko dañ ne am na bor mu amee état wu Sénégal mm. te bis bu wàccee ci réew mi te fay ko dina dem kaso li dal Tayib Socé wala boog li daloon moo koy dal maanaam contrainte par corps amee amee nga bor fay soo fayul dem kaso toog heure boo fayee génn loolu mooy le véritable problème bi nga xam ne tey su Karim Wade wàccoon ci réewum Sénégal mi premier problème bi am mooy boobu mm-hmm. loolu ab Ablaye wadd il va régler ça fu lu mu mënti dialogue dialogue lu mu mënti waxtaan wax daal loolu la bëgg régler mm-hmm. te régler ko moom mooy permettre Karim Wade ñibbi si réew mi mën a bokk ak si langue politique gi mais surtout mën a jël le parti démocratique sénégalais bi nga xam ne papaam wóoluwu ci kenn ku dul moom. Hmm. parce que euh, PDS boo xoolee niñ ko euh, tëggaatee seen secrétariat national laxaw ma. Hmm. am na post bu ñu ci jox Karim wàdd même su fekkee Bara Gaye la ñu toftal juste ci ab Ablaye wàdd amul une hiérarchie kii di que Bara Gaye mooy chef ñu ci topp ñëpp ils sont au même niveau Ablaye nekk ci kaw. am na lu Ablaye Wade di préparé. te am na kenn ci frondeuru PDS yooyu ku ne ma d' ailleurs Wade est allé jusqu'à ne su fekkee ne moom Ablaye Wade nekkul ci réew mi kenn moo am droit convoquer les instances du PDS su fi nekkul mooy Doudou Wade. yaa ngi dégg bu baax. cela veut dire quoi que ne Wade préparé wu na pour que son fils puisse prendre les destins de ce parti là loolu nag ñaar nga ciy jàng Aïcha. mën nga ne est-ce que ça respecte les normes de la démocratie mën nañ ci discuter pendant très longtemps ku nekk ak sa gis-gis. mais damay comprendre pourquoi Wade def ko parce que soo fekkee da nga créé un parti en 1974 parti bi di subir ay trahison di subir ay trahison ba ñëw pouvoir jóge ci pouvoir di continuer di subir ay trahison di subir ay trahison ba 2019. âge Ablaye Wade ku mu nekkoon ci ñun aussi da nga naan sama doomu lu mu ci day ku ci doon da nga naan sama doom ma ci doy mais loolu beneen débat la mhm. mais en tout cas ce contentieux bi nga xam ne moom lañu ñu war a vider tey mooy le cas Karim Wade su fekkee ne Karim Wade mën naa ñibbi ci réew mi en tout liberté jëlaat ay activité politique am su fekkee ne c'est son souhait parce que mhm. dégg mu wax boobu ba léegi jàmm day daal di am mais également qu'est-ce qui va après parce que dans cette affaire là am ay perdants ak ay gagnants mhm. les gagnants mooy d'abord Karim Wade ci boppam parce que dinañ revenir dans le jeu. Mm. ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ko topp Abdoulaye Wade Macky Sall la il il est le principal gagnant de ce vent de décrispation parce que réew mi bu la ci kenn ump sa mm-hmm. fii ñu toll nii réew la moo xam ne njëg wàccatul njëg day yéeg. Mm-hmm. am loolu moom bu la ci kenn nax. Mm-hmm. réew la moo xam ne les tensions vont commencer sociale surtout donc loolu su fekkee ne am na un vent de crispation le principal gagnant mooy le président mais. ak Macky en réalité est-ce que les actes yu muy posé da ngay lire nga ne c'est des actes de président kii veut tout calmer parce qu'il est euh, dans son dernier mandat man loolu laa mës jàpp mais démb toog fii def diine ak jamono ak ay borom xam-xam su ma leen dégloo damay gëm ne tey le président Macky ci perspective bi mu nekk lu simple la mooy dina def lu mu mën pour décrisper dina def lu mu mën pour que ñëpp delloo ci jàmm mais il va également ouvrir les yeux def ni jinax di def di def nii di xool ban pax lay jaar su fekkee ne xool na si mille vingt 2024 gis na un Cheikh Tidiane Gomis boo xam ne mën na ko remplacer en toute tranquillité mu dem ci jàmm ak salaam réew mi ne ci jàmm moom kenn du ko topp ci dara kenn du inquiéter sa famille ci dara il va il s'en va su fekkee ne dafa xool carte gi xam ne mbër yii fi taxaw su leen bàyyeek njabootam ñu duma njabootam il va se représenter mm-hmm. parce que là il va falloir qu'il surveille ses arrières bala ci kenn ndax donc c'est un vent de décrispation c'est une excellente chose pour le Sénégal moi je que c'est une nouvelle pour le Sénégal maintenant li am solo mooy que ñu bañ ko def au détriment des intérêts des Sénégalais parce que politiciens yi loolu mooy seen problème souvent dañ leen di jubóole di leen euh, fexe ñu nekk benn pour l'intérêt du Sénégal ñoom ñu yaakaar ne ñoom dañoo war a nekk benn pour seen ay intérêt crypto mm. personnel maanaam xool nan laay def pour am un troisième mandat nan laay def pour diw sama doom ñibbi si et cetera et cetera mais lépp solo mooy l'intérêt du Sénégal et ce vent de décrispation là même bu fekkee ne c'est pour une semaine deux semaines c'est une bonne chose. d'accord Moustapha man j'ai j'ai deux questions benn bi moom mooy. Mm-hmm. Euh, euh, pourquoi à chaque fois fi Sénégal bu président de la République euh, briguer deuxième mandat am deuxième mandat bi dañuy seetlu ne yi a accumulé am na démb euh, Maurice John euh, bu ci tontu tontu bu am solo parce que nee na sénégalais yi donc dafa am impression que ne bu ñu la falee benn yoon nga def un premier mandat ak sa ay lacunes et tout dañuy am envie mayaat la une chance une deuxième chance Ablaye Wade loolu lañ def moom en 2007 bul fàttali ne 2007 bi lay Wade dem élection Dakar gépp ay pax la. ñu naan wàdd ay pax yi la def ndakaaru benn chantier terminé wu fi mënoo fi circuler fenn je me rappelle d'ailleurs euh, 2007 am na une longue discussion bu ñu mas a am fële ci Sacré-Cœur ak Sidi Lamine moi je disais à l'époque que ni Ablaye Wade mënul fexe ba gañe fi élection premier tour parce que tel que je vois les choses ni mu demee une gañe fi une élection premier tour mënul nekk au Sénégal Sidi Lamine mu ne ma yéen a ngi nag gañe élection am te Wade dina ko en 2007 Wade est passé au premier tour Mouride il regarde ñi fi nekk ne ñii daal franchement jox Wade une deuxième chance mu terminer ces chantiers là dem yoonam moo gën mais Wade quand il a gagné Sénégalais yi commencé gis ne kii nekkul ci tànku dem comme ni ñu yaakaaroon ne bu ñu ko falee waate day dem muy changé constitution indi fi ticket présidentiel indi fi vice présidence gars yi ne kii doom ji lay euh, lay nu koy wax sax bu ñëwee dee xàllal babal doom jaa tax doom ji lay xàllal babal ñu commencé nag jóg les tensions sociales commencé ba yóbbu ñu ci 23 juin euh, ba ni jógee Macky Sall également bul fàtte ne dañ ko fal ci euh, président boo xam ne dafa ne woon bu ñëwee njëg yëpp dina wàññeeku mas na taxaw fii ci Castor yor benn saaku ceeb la naan euh, bis bu faloo euh, xootu saaku ceeb naan bu faloo ceeb dana wàññeeku Euh, juge fa euh, ne essence ak gasoil moom mënul comprendre pourquoi ñu koy jëlee pooru Ndakaaru bi yóbbu ko ba Mali Mali gën ñu koy yombale donc bis bu faloo day wàññeeku location extra bi mu faloo bul fàtte ne son premier mandat Macky Sall a fait des efforts extraordinaires pour que salaire nit ñi yokk parce que dafa wàññi le taxes sur les salaires boobu mooy boobu defe naa mooy yokk salaire bi gën a dëgër ci Sénégal parce que temps yooyu ku xool sa salaire xam ne yokk na trop alors bi loolu amee mu def ay efforts pour maintenir njëgu gasoil et cetera mais bu mu falwaatee quest qu'il fait yokk njëg moo commencé ci réew mi wàññi ay agence ñenn ñi ñenn ñi dañuy dem chômage et cetera et cetera alors loolu li ko waral mooy euh, dafa demoon ci benn premier mandat boo xam ne il a pris trop d'engagement gas fi teeram bii nga xam ne demul dikkul euh, mu taaloo dëkk ñoom Cheikh Tidiane boobu ak yeneen ak yeneen ak yeneen alors ci deuxième mandat bi mais les les institutions de Bretton Woods muy ay ñoom FMI e banque mondiale ak affaire mais dañuy ñëw taxaw ne ko mais il faut serrer la ceinture alors serrer la ceinture boobu ñu nekk nag moo tax nga gis prix wu gasoil ak essence yokk nga gis mburu mi ñu yokk ko pare naan ñu ay dañu créer benn baguette bu bees ak nangam ak nangam ay waxi kese la mburu yokk na te ku dem ci nga xam ne mburu yokk na bu bees la ak cent ñaa xoma ñaata gramme cetera et cetera alors loolu loolu mooy dem nga di nga gis fan yi ñu gis fan yi ñu jëm yeneen yokk parce que su fekkee ne gasoil dafa yokk ak yooyu day influer ci les prix pratiqués parce que prix boo fi gis ci Sénégal dañ koy transporter te li koy transporter ay oto la oto yi lu ñu ciy def kenn defu ci ndox kenn def ci ndox donc yooyu day yokk tout cela fait que ce deuxième mandat là day nekk forcément un mandat à tension loolu nag moom la président Macky Sall bëgg prévoir parce que benn journaliste comme man Momar jong moo ci attiré sama attention bi Macky Sall faloo je crois que deux ou trois mois lañ ci teg bi mu defee prestation de serment pare ci la wootee dialogue mu ne ma en réalité woote dialogue bi c'est pas pour régler des problèmes politiques ak nangam ak nangam mais Macky Sall dafa xam ne on va vers une période de tension sociale ndax njëg yi dañuy yokk ak et cetera et loolu la bëgg balañ ciy àgg ñëpp ànd comme ça su amee il aura de de de de tous te loolu effectivement commencé na. voilà moo tax moo tax Masaalikul Jinaan bu la ci kenn nax ndax Sëriñ Muntaxa Mbàkke def na li ko war mhm. mais tey jii li ma leer mooy bañ ko defee ba pare ki ñibbi këram dugg ci néegam dakase mooy président Macky Sall parce que il espérait ça il voulait ça mais porte bu mu doon jaar bu am ko moom la moom moom moo doon problème mhm. Moustapha sànq tamit wax nga ne que euh, le seul contentieux entre Abdoulaye Wade ak mhm. Macky Sall c'est bien entendu mhm. euh, Karim Wade moom bu ñu fexee ba indiwaat ko ci réew mi est-ce qu'il est réellement une menace pour le président xam nga nag euh, politique Sénégal man dama cee bàyyi mosuma ko def sax mais dama ci bàyyi di ci di ci météo naan kii ça représente une menace xam dafa am ñaari wala ñetti étape de sa vie yoo xam ne il faut nga ci bàyyi xel bi ci njëkk mooy bi Karim Wade nekkee au pouvoir ak papam ci la ko sénégalais yi parce que avant euh, sénégalais yi ko xamoon bari man j'ai vu Karim pour la première fois je crois bi papam génnee kaso euh, année 90 boobu man def naa maa ngi nekk école primaire wala collège euh, collège je crois Ablaye Wade ñëw Louga ànd ak moom génn kaso rek di wër Sénégal ànd ak moom contrairement ak ce que les gens disent naan Karim mësul ànd ak papaam mësul euh, kii ak yooyu daana ànd ak papaam nag. parce que man je l'ai vu de mes boobu sax dafa amoon karaw d'ailleurs. Mhm. ànd ak papaam ñëw place Yacine Bouba à Louga ñu fa dëkk xam nañu baax li may wax ñëw fa ànd ak papaam nii man ci laa ko ci gisee mais moment boobu ñu bari xamuñu ko woon. Mhm. bi ñu ko commencé xam mooy papaam jëlee pouvoir bi wax ne dafa bëgg sénégalais yi nekk à l'étranger ñu ñëw jibi seen réew di liggéey. ci la ñibbisee moom parce que dafa jàpp ne Sénégalais la bu nekk à l'étranger comme tout le monde. Mhm. mu ñëw commencé liggéey bi mu commencé papam jox ko ay pouvoir yu bari. bul jàppal baax li ma la wax étape boobu sénégalais yi dañoo jéppi Karim Wade lool ba su génnoon ci mbedd mi ñu dóor ko xeer mhm. beneen bi mooy ba fa mu jógee ci pouvoir bi Macky Sall engagé ay poursuites contre moom sénégalais yëpp a tàccu ne parce que kii fi mu dugal suñu xaalis il faut mu génne ko mais condition yi mu demee kaso ak niñ ko attee sénégalais commencé nag naan lii am na lu ci louche mm, parce que mënoo jàpp doomu aadama Moustapha mii ñëw ne ko Moustapha téléphone bii nga yor sa salaire mayu la ko léegi prouver ñu ne yaa ko moom mais yow mi ne moom ma ko yow yaa war a prouver ne moom ma ko mais man mënuma prouver ne maa ko moom mm-hmm. yaa ngi dégg Karim Wade noonu la demee kaso mu dem kaso loolu doyul ñu euh, nga gis sympathie commencé di juddu mm-hmm. ci la les mouvements karimistes la commencé di essaimer un peu partout ou Sénégal loolu euh, ñu nekk ci loolu ñu génne ko prison guddi mus lu musul am Sénégal une di du matin nga génne nit prison defal ko passeport ci bis bi ñeen sax neen du passeport benn këyit lañ ko defal boo xam ne rek su demee dootul mën a dellusi mais quoi cela ne tienne dugal ko ci jet privé yóbbu ba léegi mënul teg tànkam Sénégal mm. am na ñu bari commencé ne benn dil la bu ko léegi Ablaye Wade sympathie bi commencé di wàññeeku ça c' est vrai le jeu s' poursuivi parce que euh, la nature a horreur du vide mais lu ci mënti am mooy Karim Wade bi papam nekkee pouvoir ak Karim Wade tey bokkul tey jii la réalité boo demoon ci parti démocratique sénégalais tey la réalité du parti démocratique sénégalais mooy jeunes yi fa ñëw yëpp adhéré ci parti bi après c' est avec Karim Wade qu'ils sont mmh. Mmh. donc ñooñu donc nga bañ ko nga nangu ko tey jii am na ay nit ñu mu àndal et loolu c'est une réalité politique maintenant est-ce que li ne ci Wade nekk na ci Euh, Karim Wade pour que mu mën a li ñuy wax ci rugby transformer l'essai pour mu mën a transformer l'essai ñi ko topp nekk nekk nekk ay sympathisants mu transformer leen en des électeurs ça c'est tout un travail à faire et bu ñu bisee ci réew mi du ko mën beneen avantage yi moo tax ma yaakaar ne mën na nekk une menace pour le pouvoir moo di ne dafa bari ci Sénégal ñoo xam ne ay Baye Fall Ablaye Wade lañ dañ ko bëgg ba jeex tàkk te mënoo expliquer lu tax ñooñu dañuy projeté Ablaye waat ci Karim Wade déglul baax li ma lay wax. Mhm. Sénégal dafa am lu fi xe lu fi am moo di ne par exemple dangay gis sëriñ bu génn àdduna taalibe yëpp ñëw jébbalu ci doomam. Mhm. parce que dañuy projeté papaam ci moom. dafa am tey des Sénégalais yoo xam ne du ñu ay militant wu PDS du ñu ay militant wu kenn mais ay waddiste lañ. Mhm. pur et dur seen yoon nekkul ci lu Ablaye waat def baax na ak baaxul c'est pas leur problème. ñooñu bis bu ñu noppee gis Ablaye Wade dañuy projeté wu ci doomam ñooñu nag. mën nañu constituer une menace pour n'importe quel pouvoir. waaw mais xam nga euh, fu mu nekk nii comme moom ni mu ko waxee rek ci euh, euh, maanaam. man xam nga lu may laaj mu Ba. Moussa Ba man dafa am lenn lu ma lay laaj. parce que ñu bari dañuy jàpp ne. Mhm. nga tey jii kii nga xam ne moom mooy Karim Wade. Mhm. ak kii nga xam ne moom mooy Khalifa Sall. Mhm. xam nga am na. Euh, Karim génne na nee na euh, kii au ou rien. wax na ko ci benn presse. qui ça. Euh, Karim Wade. Karim waxul sax amnistie. Karim daf ne moom. reprendre procès. révision du procès. Mhm. cest à que am na ñu ko bëggal amnistie. Mhm. moom nee na bëggul li mu bëgg mooy ñu reprendre la procès pour que ñu xam ne deful dara xam nga amnistie Cheikh bu ñu la ko defalee tekkiwul ne defoo dara. dafay effacer les faits mm-hmm. tey ji yow boo doon président de la république mën nga xëy suba nga ne yàlla na ko nekk nga ne léegi Sénégal li fi xewoon du ma jig de <laughs> waaw ma jig mën nga nga ne nga Sénégal li fi xewoon diggante deux mille deux mille ba deux mille dix neuf mm-hmm. amnistier nañ ko mooy maanaam lépp lu fi amoon ci ay faits lépp effacé nañ ci mooy ka euh, bi ñu ko. defee mooy la loi Ezzan. la loi Ezzan nga xam ne moom moo amnistier l'affaire maître Sey. néewuñu expressément affaire Mercier mais dañ ne période ay je crois que ay 1980 lañ déparé. ba nangam lépp lu fi xewoon effacé nañ loolu mooy amnistie Karim Wade également man na demee noonu. tey jii président Macky Sall mën na yeewu mu ne lépp lu xewoon ci réew mi diggante 2012 bi ma jëlee nguur gi ba 2024. effacé nañ ko wala ba 2019 effacé nañ ko loolu day effacé mbirum Karim Wade ak mbirum Khalifa Sall ak lépp mais Karim Wade d'après li ma li ma li xam te ay prochain wax ma ko moo di ne moom bëggul loolu li bëgg mooy révision révision mooy ñu reprendre projet bi fañ ko commencé woon ba mu setal ko l'un dans l'autre voilà l'un dans l'autre mhm. est-ce que tey jii Karim Wade euh, ci loolu bëggul encore euh, kii euh, am sympathie wu mhm. population wu Sénégal mais bien pour mun a maanaam ñëwaat dans la ci échiquier politique bi. parce que mhm. boo xool léegi. il a démontré son innocence quoi. voilà xam nga léegi. Mhm. carte bi euh, bu ñuy xoolaat boo ko boo ko demee boo demee benn lecture politique. Mhm. da ngay gis ne Khalifa Sall ñëw na. dégg nga. des na rek ñu ay droits civiques am. moom yaa Sonko qui là. dégg nga ah moom mooy nouvelle génération bi xam nga ñooñu la. absolument dégg nga léegi nag moom. il faut que pour mun a ñoom ñaa nga xam ne am nañu. Mhm. actuellement kenn du ne que Sonko amul sympathisant wu euh, kii sympathie. am na yu bëri waa ñu ci bëri. Mhm. Khalifa Sall avec lii am ni am na sympa euh, sympathie gaay gaay mhm. léegi nag moom moom pour mu mun a ñëw tolloo ak ñoom wala leen. faw moom mu. maanaam doxalee noonu. mais absolument tey jii xam nga moo tax loolu moo tax ma gëm ne loolu moo tax muy wut euh, révision. Mhm. parce que tey buñ ko amnistié woon mu ñëw euh, il ne se passera rien tout est calme et cetera mais imaginez woon ñu ne dañuy reprendre procès Karim Wade Karim Wade war a ñëw nekkaat en procès ñu commencé fa ñu commencé woon effectivement Cheikh dafay créer beneen sympathie te loolu moo tax man ma gëm ne quelque part Mame Birame Wathie l'avait écrit yàgg na que ni Ablaye Wade ak Macky Sall. mën nañu euh, xaw a ré xaw a féewaloo ay ay ay fan wala ay at mais du ñu réeroo parce que lay Wade dafa mas a wax mu ne moom li mu bëgg mooy jiite Sénégal pendant cinquante ans bu ko waxee moom mënul jiite Sénégal pendant cinquante ans mais sa famille politique mhm. di régner ci Sénégal pendant cinquante ans Amath Dansokho mas na wax ne Wade dina dem ba ci biir bàmmeelam di ñu jiite <laughs> alors jiite jiite Sénégal pendant cinquante ans sa famille politique ah bul fàtte ne Ablaye Wade jiite na Sénégal douze ans mhm. ku bokk ci famille politique am mhm. jël jiite ñaata fi mu ne nii douze ans da koy boucler yàlla na ko yàlla may mu àggale ko ak jàmm mhm. muy ñaata muy vingt quatre ans donc facilement da ngay la moitié réglé nañ ko alors comment faire pour que le pouvoir bi nga xam ne la famille de Wade moo ko yore mhm. actuellement mu war a mu bañ a dellu ci la famille de ñoom Senghor ak yooyu mhm. famille wu ñoom xalifa Sall ak yooyu c'est ça le véritable problème te tey jii faire revenir Karim Wade dans le jeu avec une révision de son procès mooy mayaat ko turbine pour que mu mu waxaat ak sénégalais yi amaat sympathie bi nga xam ne xëy na ni mu conditions yi mu génne ci réew mi tax na mu commence mu commencé ko woon perdre leneen li mooy bul fàtte ne Cheikh et tu bien fait de le relever mooy moment bi Karim Wade nekkee prison bi mu demee Qatar bokk le jeu politique dafa changé complètement mm-hmm. avec benn phénomène muy le phénomène Ousmane Sonko wala le phénomène Pastef te Sénégal dafa doy waar gis nga moment bi ñuy vent de décrispation boobu bi ñu koy tudd Ablaye lay ak Karim euh, Macky Sall di nuyoo ñu naan Karim Wade mën na am mu ñëwaat ak nangam ak nangam moment boobu ci la assemblée nationale enclenché benn procédure boo xam ne bu ñu deful ndànk kaso la jëmee Ousmane Tanor euh, euh, Ousmane Sonko yaa ngi dégg wax bi donc su ko jëmewul kaso également dina ko isole dans l' espace politique ba sympathie bi nga xam ne moom la sénégalais yu bari amoon ci moom euh, di ko topp et dina dem ba sympathie boobu dootu ko tal moom parce que dina nekk parce que bu demoon prison tey lu ma ko dina tal leneen loolu di lijjanti ay kii yooyu te maître El Hadji waxoon na ko fi ne dañuy xaar député yu blanchir Mamour Diallo blanchir nañ ko pare danañ woote danañ woote plénière pour adopter le rapport bi nga xam ne la commission d'enquête parlementaire moo ko def buñ paree li liñ ciy def mooy envoyer procureur de la République demander ñu lever immunité wu Ousmane Tanor Dieng Mamour ah, Diallo ma ca Louga Ousmane Ousmane Sonko Mamour Diallo ma ca Louga porté ko plainte pour diffamation euh, dénonciation calomnieuse ak yu ñàkk fayda yooyu ñu yóbbu ko devant le procureur su deful ndànk dem prison mais loolu lépp nag Cheikh le moom man loolu moo ma rassuré mooy projet wu politique yi la. mais xamuñu dara ci projet wu yàlla. mais Moustapha <laughs> euh, xamuñu ci dara projet politique boobu noonu man dama ah, koy. dañuy teg seen i pièces di calculer. naan mën nañoo fexe ba waa ji Ousmane Sonko ñu isolé ko. Mm. mën nañoo fexe ba la famille de Senghor la ñoom Khalifa Sall ak ñooñu ñu fexe ba isolé leen duñ revenir dans le jeu su ko defee la famille de Wade ñu xool ci biir kan la ci Macky Sall mën a fexe ba parce que Macky Sall tey moom nëbbu ko kenn il a toujours dit que ne li ko doon gënal mooy regrouper toute la famille libérale. soo nee toute la famille libérale da ngay tudd Idrissa Seck da ngay tudd Pape Diop da tudd Madické Niang da ngay tudd Karim Wade da tudd ñeneen ak ñeneen ñooñu su fexee ba boole leen ñu nekk benn famille àndaat ñoom mais Macky su ko neexee représenté wu en 2024. Moustapha euh, rek ñoom. mais nag projet yàlla ngi fi. <laughs> projet yàlla boobu nga wax xam nga da ne projet politique dafa am. Mhm. man ma koy woowee peut-être de ping pong bi nga xam ne dañ koy def sénégalais seen seen recours mhm. mais su est-ce que tamit jàppoo ne instant bi moment bi nekk nii jeunesse bi nga xam ne tey jóg nañu wala jeunesse bi nga xam ne tey màgg nañu ay 24 ans 25 ans 30 ans ñoom instant bi est-ce que maaruñu ci cercle politique boobu noonu est-ce que bëgguñu changement Aïcha loolu moo inquiété la classe politique bu Sénégal la classe politique traditionnelle loolu mooy inquiété xam nga tax loolu inquiété leen mooy dañu dem élection présidentielle euh, Ousmane Sonko présenté wu pour la première fois hmm. Euh, ban discours lay présenté woo discours boo xam ne euh, def dëgg wax dëgg maanaam jayul benn sénégalais day wax la réalité Ousmane Sonko c'est le seul politique boo xam ne moom mooy jàkkaarloo Sénégal wax leen lu leen naqari. Mm-hmm. ñeneen ñi ñëpp dañuy wax Sénégal lu leen neex pour am ci ñoom euh, électeurs moom il au Sénégalais li nga xam ne moom moom la jàpp ne mooy dëgg. Mm-hmm. alors li étonné nit ñi mooy mu dem élection présidentielle réunir au moins pratiquement mille bois mësul am. Macky Sall bi muy jàll au premier tour en deux mille euh, deux mille douze su ma juumul il tournait autour de six mille voix ah. six cent mille voix su ma juumul wala six cent mille ou jëm. en tout cas motul woon quinze pour cent. non non non non non euh, alors il était euh, il était de ça. kii hmm. di Ousmane Sonko ñëw. il va à une élection présidentielle lu mat sept cent ñu jege sept cent mille sénégalais hmm. voté te ñooñu soo leen xoolee ay ndaw lañ. lu muy tekki moo di ne Aïcha li ngay wax nii. moo di ne bëri na ndaw ñoo xam ne xool nañ la classe politique ñooñu ñi ngi judd xëy na bi waat di ñëw ci pouvoir bi en 2000 wala un peu avant. xool la classe politique nit ñi dañuy fonto 1960 ba léegi ñoom ñoo fi nekk mm. ku pare jox sa morom su Cheikh nekk opposition su Moustapha Falo mu nekk opposition yow nga ànd ak Cheikh Tidiane bu Cheikh Tidiane euh, su Cheikh Tidiane Falo nga bàyyi ma dem ànd ak moom mm. xoolal ñi mm. nekk autour de Macky Sall xoolal ñi mu nommé fan yi ñi si ëpp c'est des gens yoo xam ne c'était des des ministres de Wade ah euh, bërki dem benn waaye mi ngi naan ma Macky Sall nag mi ngi bëgg a créer problème parce que fekk na Thierno Lo ñi nga xam ne c'était les farouche adversaire nekk ak Wade mu jël leen ñu bokk ñu dëkk Daaru Musi ñoom ñëpp mu jox leen ku ci nekk ay poste teg ci ay fan Ibrahima Sall mi nga xam ne moom moo àndoon ak moom depuis mu génn ci mhm. pouvoir ba léegi mhm. créé modèle euh, ak créé ak moom man membre fondateur u Macky 2012 doon nekkoon représentant wu Macky Sall ci réunion wu Bennoo Siggil Sénégal yi moom ak ñoom Assane Diak Moustapha Fall Thièque ñooñu kooku la folli bi mu koy folli fekk na mu jox ses adversaires Diagne Fada ak euh, na lu ay armes yu ñu ko mën a xeexee à Darou Moussi tu vois que ça fait. Mm. loolu nag Sénégalais di ko gis dañ naan mais ñii finalement dañ ñuy dañ ñuy dañ ñuy dañ ñuy dañuy fonto mm. te électorat Ousmane boobu ngay wax li ci doy waar mooy ndaw ñi koy voteel gëw ma ne dañeen wàññeeku. xanaa kay dañuy yokk mais góob ma dinañ wàññeeku li koy waral mooy ndaw ñi mujj a juddu ku ci am ka âge yu élec âge yu mën a woote rek da ngay xool la classe politique ne ñii. samay maam votel na leen mhm. samay papa votel leen samay nijaay votel leen samay tante votel leen ba léegi ñuy fonto mais jot nañu seet leneen Emmanuel Macron lool moo ko fal en France ah te lool c'est une menace boo xam ne tey ils vont tout faire pour juguler ko